plateforme yi ci réseaux sociaux yi moo di jaajëfal euh, beneen yoon di rafetlu seen toolu euh, tey nag euh, ñu amal waxtaan ak nga xam ne moom mooy Mor Ndao Mor Ndao ñëpp xam nañ ko ci ASCOSEN wante xam ngeen ne njiitu réew Macky Sall dafa teg ci bopp li xam ne moom mooy commission nationale de régulation des loyers des baux à usage d'habitation ñu naan ko CORED xam ne nag dañuy wàññi li nga xam ne moom mooy gouvernement yi ñu fas yéene nag euh, waxtaan ak moom euh, ci euh, boobu wàññi gouvernement yi ak lépp ko mën balaa ngay sori sax ma bàyyi ko mu neen teg mbokk internet. asalaamaaleykum ñun maa ngi leen di nuyu di seetaan ci biir réew mi ak bitim réew yëpp seen télévision yeeg seen plateforme voilà balaa may sori rek ma laaj tey lan mooy commission nationale de régulation des loyers des baux et immeubles d'habitation muy commission bi nga xam ne kon njiit réew Macky Sall tabb na la ci bopp bi. waaw jërëjëf xam nga ne euh, état du Sénégal depuis ay 2006 Sénégalais yi dañ doon jombat affaire loyer bi. bu ñu demee ba tar ci 2008 ñu defar benn commission. d'enquête parlementaire professeur Ibrahima Thiam ndem si yàlla dañ na ko yore xare àjjana moo ko jiite woon mu defee noonu ñu jébbal ko état bi à l'époque état daf ne woon pour wàññi loyer bi bàyyil ma yokk ma fexe ba nit am kër yu bëree bëri bu kër yu bëree mbir yi wàcc mm-hmm. looloo taxoon état di jéem a pousse daal pour que euh, tabax yi bari waaye li ci nekkoon mooy ne li tabax yi di bari bari bari ñoo ñu dendal nekk suñu ay dëkkandoo dañoo nekk ci ay jafe-jafe seen dëkk ya jax su ko defee ñu fa am koom ñëpp rawale seen njaboot indi fii te ñooñu dañuy am possibilité fay prix bu seer loolu bokk na ci ñu yéegaloon prix yi bi ñu demee nag ba 2014 état gis ne yokkuñu nombre de maisons yi ñu war dafay yéex yéexaay boo xam ne demande bi mënu koo dab hmm. ñu gis ne kon suñ naree xaar ñun ñu loyer maanaam kër yu bari pour ñu wàññi loyer bi kon Sénégal yi dinañ toqi fekk na am na benn étude boo xam ne agence nationale de la statistique muy agence bi nga xam ne ñoo dugg ci biir kër yi di contrôler ñaata nit ci dëkk moom mu waxoon ne li nga xamante ne bi moom moo nekk ci mbirum location mooy ne dafa métti Sénégalais ba Sénégalais bu nekk neen nañ ko wàññil 37 pour cent ñu gis ne 37 pour cent mooy li nga xam ne jàpp nañ ne bu ko wàññi woon mu dox mais comme état day tëddee njaaxaanaay ñu gis ne ñi nga xam ne ñooy bailleurs yi mu ne est que ñun bailleurs yi ñu di luyee lu normal wala déet mm-hmm. état bi def étude gis ne bailleurs yi 98 pour cent mu respecté wuñ wax ñu ko doon respecté ay 1 pour cent la ne est ñuy miir kër yi dañoo nekk ne dañ ko tabax ak seen xaalis wala ndax ciment yee seer ci ñoom wala déet mm-hmm. ñu gis ne boo jëlee téeméeri nit yu nekk juróom fukki ak ñaar ak genn wàll dañoo nekk ñoo xam ne dañoo xëy rek doon kër gi da nekkul kër goo xam ne ñoo ko jënd ak seen xaalis ñu ne ñaar ak genn wàll yi dafa nekk ñoo xam ne dañ leen ko may mais ni ku takk soxna may ko may ko kër mm-hmm. nga xam ne toujours da ngay toog rek defoo dara rek kër gi ñëw solo loxo kon ñu gis ne juróom fukk ak juróom ci ay nit ñuy luy ay kër nekkul na ciment bi moo seer wala euh, banque beek yooyu ñoo seer ba tax ñu yokk ñu ne waaw ñi ci des nan lañ def ne ñi ci des ñu ci bari dañu génne seen xaalis jënd ciment wala yu mel noonu ñooñu dañoo leb banque bu dolli ci wala ñu leb banque tout court ñu ne yooyu ñooñu noonu ñaata la njëg yi yokkee ci ñoom ñu ne ah téeméer boo jël daal njëgu boo boole njëgu ciment beeg njëgu euh, ndoxu tabax beeg njëgu courant bi ñu ci utilisé njëgu banque yeeg yooyu yëpp daal boo ko xoolee yokk na quarante huit pour cent hmm. quarante quatre pour cent pardon mu ne ah comme yokk na quarante quatre pour cent xel na ne mu pour cent ñu ne waa kon nañ xool gis ne nekk ñu yokk pour cent dañoo yokk 256 virgule 06 pour cent hmm. maanaam lan waroon a yokk ñoom ci seen bénéfice yokk nañ ko juróom-benn yoon. muy bailleur bi état gisee ne ñoom dañoo yokk juróom-benn yoon mu ne ah wax dëgg yàlla man état njaaxaanaay lay tëddee te actuellement li ngeen yokk dafa ëpp dayoo kon nag il faut ñu wàññi loolu moo waral wàññi 2014. mais ci biir discussion yi ñu départ comme population yi 37 lañ demandé woon euh, ci fi ñu ko doon réunion commission boobu dafa am bailleur am euh, locataire am yëpp discussion yi nekk ci jàppal bàyyil ba ba ñu di toll ci vingt pour cent wàññi ak quatorze pour cent ak quatre pour cent loolu moo nekkoon li nga xam ne moom lañ tëraloon ci wàññi 2014 mm-hmm. bi. dañ ko tëraloon nit ko wàññi 2014 bi nga gis ne commencement ñëpp respecté mais am na ci ay bailleurs yoo xam ne dañoo bëgg xaalis ba nan la ñoo noo wàññi normal dañ doon seet ay prox ndol yu ñu jàll bu bañ a wàññi ñu gis ne ci am na ci prox ndol yi ñoo xam dañu ñëw ne la maa moom sama kër day noonu hmm. ak ñoo xam ne dañ naan la def nañ surface corrigée aso façon lay bu nee daal am na ñu bari ñoo xam ne lay nañ ko pour bañ a wàññi hmm. ndax bëgg koo xam ne bëgg nañ ko ñu gis ne nag bokk na ci jafe-jafe yi li ñu gisoon ci li taxoon 2014 bi mu am yenn jafe-jafe yi mooy ne état bi dafa wàññi ba pare ab santé. ok si commencement bi commencement bi ministère du commerce moo ko doon jël su fekkoon ne sax du ministère du commerce parce que beneen ministère moo ko waroon jël bi ñuy wax ministère des finances. Hmm. waaye dafa manqué woon daal kuréel boo xam ne moo taxaw. wara a saytu application li nga xam ne mooy texte yi nga xam ne moom lañ jël looloo tax nag bi nga xamee ne dem nañ ba dix-neuf millions di commencé di yokkaat état nag ne léegi comme loolu am na ñoom ñu pousse état ne ko na créer commission boo xam ne maanaam kuréel goo xam ne comme nañ ko waxee woon ci 2014 suñu jëlee disposition moom moo koy pour ñu appliquer ko kuréel boobu nag moom mooy CONAREL état d' accord créer ko léegi nag kuréel boobu moo war a saytu lépp lu jëm ci luyaas yi ak nan la ñu di def ba jot ci kër ci jotuñu bu yomb ak naka la ñu a def pour que lépp lu jëm ci luyaas mu génnee ay ay yoo xam ne day day baax ci liggéey bi loolu itam nan la ñu def ba taxi yi nga ne dañ ko war a euh, améliorer ñu améliorer ko ak itam lépp loo xam ne lu jëm ci luyaas la te ñu gis ne lii lu ñu war a lijjanti la ñu lijjanti ko loolu mooy konareel léegi nag ñu ne konareel comme national dafa war a am ci gox goxaat yu ne mais kon war na am ci région yi <coughs> loolu tax ñu ne région yi day am commission régionale yoo xam ne gouverneur yi ñoo koy jiite su ko defee ñoom itam la xew ca région la ñoo koy lijjanti su ko defee bu ñu defee seen i seen i liggéey yéen nañu ko nag ñun au niveau national su ko defee ñoom ñu validé ko loolu mooy liggéey bi nga xam ne moo ci nekk kuréel la boo xam ne kuréelu état la yoon lay dox lépp loo xam ne moom la affaire bi wax ne moom la yoon wax ci li nga xam ne mooy loolu waaye war a demee moom day taxaw pour ñu appliquer lépp loo xam ne jàpp dañu suñ ko defee affaire bi gën a dox ñu def loolu pour mu gën a dox loolu daal mooy commission nationale de régulation des loyers commission nationale de régulation des loyers bi nag dañ cee boole ñi nga xam ne ay kii ay bailleur lañ am nañ ku leen fa teewal. nga xam ne ay agence immobilière am na ñu leen fa teewal juge yi am ministère de la justice ministère bi nga xam ne mooy de affaire kër yi habitat am na ñu leen fa teewal ministère du commerce am na ñu leen fa teewal présidence de la république am na ko fa teewal exactement exactement exactement pour que liggéey bi mu nekk liggéey boo xam ne dañ ciy boole xalaatu acteurs yëpp dina am tam ñu teewal locataires yi su ko defee mu nekk liggéey boo xam ne pour lépp loo xam ne suñ ko defee daal eh, maanaam lépp lu jëm ci affaire location ñu lijjante ko ci lijjante mu gën a sell daal mooy commission nationale de régulation des loyers. Eh, xanaa liggéey bi war naa tàmbali comme eh, fi nga xam ne ni loi bi entraîné en vigueur. exactement ndax instant bi tàmbali ngeen liggéey bi. tàmbali nañu balaa balaa ñoo taxawal kuréel bi sax fekkoon nañu tàmbali liggéey bi. ndax texte yi nga xam ne mooy texte yi yi wax kuréel bu ñu war a doxee texte yi wax wàññeek yooyu yëpp depuis plus de deux ans ñu di ci liggéey di ci liggéey di ci liggéey ba nekk ci concertation yi continuer di ci liggéey di ci liggéey ba tax tey jii loolu am dañu taxawalee Konarel yi tamit loolu lañ commencé nañu liggéey bi depuis jour bi ñu ne Konarel taxaw na ca conseil des ministres jour boobu lañ commencé génne liste prix yi ñaata la ak euh, ku am jafe-jafe fan ngay wootee nangam maanaam liggéey bi daal door na dëkk boobu ba boobu léegi am na numéro vert dafa amoon nag benn erreur ci numéro bi dañ ko bindee woon ndax euh, am na ñu bari dañ ciy jóg su ko defee suñu juumee doo mën a jot kenn parce que dañoo bindoon huit cent huit cent doo ko bind quatre vingt fekk loolu erreur la woon mais numéro bi huit cent la rek benn yoon après nga def quatre vingt après nga def soixante dix sept soixante dix sept mais liggéey bi door na Euh, ñu ngi jot ay réclamation ñu ngi koy yónnee brigade yi pour ñu traité ko. Euh, euh, ma ma ko waxee sànq liggéey bi na xam naa pour bëgg xam ana wàññi bu ñu bu ñu waat ñu si wàññi yooyu ak it lan concerné. waaw wàññi dañu wax ne képp koo xam ne li ngay fay. diggante cinq mille ci suuf wala dix ci suuf wala même mille franc maanaam ci ñi xam ne ñu a ba bu ngay toll trois cent yow quinze pour cent lañ la wàññi cent mille yooyu tegee dërëm kese ba ba ne yegg cinq cent mille yow dix pour cent cent bu tegee dërëm ba ba ngay yegg sax cent sax bu doon pour cent lañ la wàññi mm-hmm. mais comme 2014 dañoo wàññoon njëg yi te am na ñoo xam ne 2014 ba léegi yokkaatuñ dañoo wàññi rek bàyyi ko noonu ñooñu duñu wàññiwaat. ok mais bu fekkee waa ji 2014 daf laa wàññi dem ba ci digg mu yokkaat dafay wàññi. donc loolu mooy li nga xam ne mooy situation la. ante bu ñan la wàññi boobu concerné. alors wàññi bi ñoom xamante ne bii ñoo dëkk ci ay kër ñu ngi usage d' maanaam bu dee da ngaa yore salon de coiffure wala bu dee da ngaa yore mm, fi ñuy def machine wolkaay wala bu dee da ngaa yore menuiserie wala tailleur wala yooyu bokkuñ ci ndax yooyu nga xam ne liggéey la boo xam ne comme ay atelier ak yooyu beneen loi moo leen gérer te loi boobu réew sow euh, Afrique sow jant yi ñoo ko bokk kon suñu modification di am il faut que euh, réew sow jant yëpp d' accord pour ñu génnee euh, modification loi boobu mm-hmm. loolu moo tax parti bi nga xam ne la moom la Sénégal moom moom la Sénégal fixé mm-hmm. euh, tey loi bi entré na en ñu bëri itam euh, tàmbali woon laaj ndax tey ku jóg pour fay li nga xam ne moom mooy mois de février mm-hmm. ndax maanaam kon mbir day appliqué wu waaw mbaa muy appliqué premier mars oh. maanaam xam nga comme li fi am mooy da ngay fay balaa ngaa tëdd loolu mooy li fi amoon ba léegi kon premier mars ñuy fay mois mois boobu ñuy fay mu ngi correspondre ak fin de mars parce que da ngay fay jiital képp koy fay à partir du premier mars da ngay wàññi maintenant ñu génnee tam ci décret bi leneen ñu mm-hmm. ne boo bëggee dugg ci kër bu bees nga war a kër goo xam ne maanaam yaa ngi koy doog a bees mais bu kër bu nekkul bees hmm. mais yaa ngi doog a dugg si ci location bi bees soo ñëwee ci kër gi bu njëkk dañu daan laaj ba ay 4 mois la benn mois bi da ngay fay jiital ñaari mois yi caution la benn mois bi commission bi ngay fay agence bi boo ko defee muy ñeenti weer boo gis ne loolu réunion bi métti la parce que boo fayee cinq deux cent cinquante mille ça fait million yoo xam ne war nga koo jox balaa ngaa dugg ci kër gi looloo tax léegi état ne boo dugg si ci kër bees li ngay njëkk a joxe mooy li ñuy ooyee caution mm-hmm. caution yi mën ta mois mais deux mois mois kese nga ciy fay direct beneen mois bi bu dee cent vingt mille la da koy diviser par douze mois chaque mois nga joxe dix mille bu la neexee nag nga ne man dama koy fay directement mais kenn obligé la pour nga fay ko directement da nga koy fay par dix mille dix mille dix mille dix mille dix mille chaque mois nga génne benn dix mille mu fekk si caution bi hmm. su ko defee damay boo bëgg damay fay benn mois la ak benn mois boo xam dañ ko diviser par douze mooy beneen partie costion bi léegi nag li nga agence bi boobu bu njëkk da nga daan fay agence bi léegi mois nga koy fay genn wàllu weer kon maanaam ki daan dugg la njëkk di joxe quatre mois léegi da joxe un mois benn wàllu mois pour agence bi ak caution boo xam ne yoon nee na dañ koy fay ci fukki weer ak ñaar maanaam dañ la koy euh, pàcc pàcc parce que caution bi ñaari façon la boo koy fayee benn caution la rek toujours même caution bi la mm-hmm. mais dañ naan ne lii ngay joxe ci liquide li ci des par tuuti ngay joxe voilà moom la sànq na ñoo xam ñoo euh, dañuy euh, a te par exemple ñoom ñoom lan mooy nekk seen cas maanaam lii euh, waaw comme fii ñi nga xam ne voilà moom mooy versé wala voilà léegi comme loi bi dafa génn premier mars mhm. su fekkee yow premier mars fayaguloo woon mois de février mhm. mois de février bokk ci ci wàññi bi. ok da koy fay. ok léegi yow mois de mars comme yoon daf ne da fay jiital boo koy fay da wàññi parce que bu fekk na premier dugg ba pare. Hmm. Oh. kon mois de février bi da koy fay normal. Hmm. mois de mars moom nga war a fay ak wàññi. mars nga xam ne avril nga war a fay. voilà nga mais février moom ñëpp dañ ko war a fay normal. ok ñi nga xam ne dañuy fay ma tëb doog a fay moom. mu tëb doog a bu boobaa ñoom mois de mars la ñuy a. ok mois de mars appliqué. précision am parce que am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne comme que loi décret la bu duggee rek kon jeex na dañu. waaw waaw bu duggee rek jeex na waaye comme yow li nga war a fay loolu lañ la war a wàññi dañ naan yow lan nga war a fay ñu ne février ñu ne bokk ci ñu mhm. ne mars ñu ne bokk na ci et que donc euh, war nañ laa wàññi. loolu mooy situation ok ba ba léegi ci ci ci ci ci li ma nekkoon noonu ci côté côté côté côté wàññi boobu. Euh, mhm. léegi loolu point boobu nga ci leeral. am na solo woon parce que ñoo xam ne yaakaar léegi peut être am na ñoo xam ne dañuy fay à l' avance. Mhm. mën nañu fay weer yu bëri. mbaa mhm. sax am na ñu fay at. c' est ça bu boobaa ñooñu nan lay demee seen cas. bu boobaa bépp weer boo xam ne. nañu commencé ci mois de mars bi continuer. maanaam bu fekkee da ngaa fay douze mois donc xam nga fay nga janvier fay nga février mars ak yëpp mais di ko dalee mars la wàññi donc mars day wàññeeku ba décembre loolu yëpp day wàññeeku léegi su ko defee comme fay nga ko saw borom kër daf lay remboursé li nga xam ne yow fay nga ko mu ëpp ok hmm. Hmm. parce que mois de à de mois de mars nga la wàññi bi commencé maanaam tey euh, bailleur bi wala boog locataire bi am euh, problème ak euh, bailleur bi. Mhm. tey maanaam. voilà fu mu war a jubal maanaam tey nga dem fay bëgg a déglu locataire bailleur bañ wala demee noonu. waaw bailleur boo gis mu bañ rek. Mhm. dafa xam ne moom waa wax. c'est très important parce que ñu bari dañu naan ah, sama kër la nekkatul sa kër de bien immobilier la boo yore. parce que bu nekkoon sa kër heure bu la neexee dugg ci kër kër waa ci kër gi tandis bu fekkee da ngaa nit kër amuloo droit dugg fa lu mooy lu ne la duggal mhm. sinon da ngay def violation de domicile bu la porter plainte dañ lay indi problème yu rëy donc kon mënoo jàpp ne la muy mel ni euh, euh, xam ne dafa dem Thaïlande jënd ceebam ñëw di jaay soo ñëwee la jaay mu mën laa wax jaayuma la bugg la ko waxee dalay yoon day dal ci kawam boo yoree kër di ko luyee tamit mais nga ne ko luyee ma la day dal sa kaw ndax loolu activité commerciale la c'est très important ñu bari dangay gis koo xam ne <clears throat> dana am la dama luwee étranger du ma luwee borom jabar du ma luwee ku amul jëkkër ay façon yooyu amul loolu amuñ ci droit déedéet amuñ ci ci droit ndax booy luwee da ngay luwee ndax moomu ko kër gi ngay luwee bien immobilier la donc comme bien immobilier la bu boobaa da koy considérer comme bien immobilier yow activité commercial ngay la du affaire yi damay dimbali ay nit wala déedéet dañ lay fay prestation bi la ñuy fay kon il faut ñu xam ne refus de lay doon su waaj ñëwee ne luyoo ma nga ne ko luyoo ma la yoon dal sa kaw su yoon su fekkee ne da nga ne yow par exemple kii étranger la moom lay luyee yoon dal sa kaw ndax mi ngi mel ni nga yore di dawal waaye ci ñëw nga ne ko non man étranger rek laay jël. amoo droit amoo si droit. waaw ba sama taxi la du taxi parce que taxi moom laa tere nga dugg ci taxi moom laa tere nga luwe ko donc comme noonu rek prestation yooyu boo koy def nañ koy teg ñu ko yoonu defee mais bu dee da ngaa jàpp ne taxi bi yaa ko jënd kon loolu la ci neex mooy am déedéet demeewul noonu donc il faut que nit kenn ku nekk. xam lan la yoon wax ndax ñàkk xam yoon bokk na ci li indi yenn jafe-jafe képp nag koo xam ne waxu ko mu bañ appliqué dañuy woote ci numéro bi nga xam ne brigade yi après nañ dem sur le terrain fekk ko waa ji mooy 880 77 77 am na ñoo xam ne nag dañuy jógoon bind 800 800 doog a def 80 léegi du loolu 800 kese la 80 77 77 képp koo xam am nga jafe-jafe kon euh, boo wootee si waaw benn boobu kese la ci numéro boobu rek nga waaw numéro gratuit la ay nit ñu bëree bëri bëri ñi nga xam ne maanaam appliqué nañu li ñuy wax surface corrigée bi déjà euh, bailleurs yi si ñoom dañuy bokk si si si kii bi waaw xam nga léegi-léegi bailleur ne la appliqué naa surface corrigée fekk day wax waxi kese surface corrigée balaa waajee dugg ci biir kër gi loi dafa wax ne nit ki balaa moo dugg ci biir kër bi da war a génne feuille bi def courtage cotisé. war nga ko sinon yoon da lay daan dèjà yow rien que rek parce que joxoo ko feuille bi. à à plus forte raison bu fekkee defoo surface corrigée boo ko defee te wanoo ko ko ak bu fekkee defoo ko ko yëpp war nga ko ñàkk woon foo boobu fooy bi rek dèjà daan na. mais da ngaa bëri xam xamuñu ko de kon. xamuñu ko ñu bëri maanaam lois yi dafa compliqué ba nga xam ne. bailleurs yi xamuñ ko loolu bokk na ci li sax bailleurs yu bari nekk ci erreur agence yi xamuñ ko bokk na li sax ñu dugal agence ñu dugal bailleurs yu bari ci erreur parce que suñu xamul loi yi ñuy conseiller bailleur bi day nekk loo xam ne baaxul ndax da ngay gis bailleur bu ne la man kat fii gars yi trois cent mille la ñu liyee mën ma wàññi du liyee deux cent cinquante mille mu ñëwaat ne mën naa wàññi fekk ne moom xëy na bu defoon surface corrigée deux cent mille la yu laaj kon jàpp na ne dafa wàññi mais fekk dafa yokk ndax ñàkk xam donc il est important que ñoom ñu xam loi loolu tax ñun defar nañ benn texte boo xam ne pour que agence immobilière yi tegu ci yoon xam lan la yoon wax hmm. ndax su fekkee ne yoon teguwuñ ci yoon xam wax dañu dugal bailleur yi ay erreur c'est extrêmement important ñu am élément d'information hmm. par exemple kaw ñi nga xam ne seen seen seen contrat dafay arrivé à expiration waaw xam nga tam moom da gis benn waaye ñoo ne la defal naa la contrat un an wala contrat deux ans wala yu mel noonu waaye ñaari contrat rek la nangu benn bi mooy li nga xam ne moom la ñuy wax contrat à durée déterminée minimum trois ans la par trois ans trois ans trois ans ak bu ñuy wax loyer à durée indéterminée maanaam amul app rek da ngay rek di fay bu suuf bu nekk li ñuy wax location saisonnière mm-hmm. mooy par exemple rek benn meuble luy waa ji deux jours trois jours semaine un mois loyer boo xam ne c'est à un wax location saisonnière waaye loolu pour ñëw nii mënoon luye nit ki ne ko un an amul te disposition yi nekk ci location dafa nekk d'ordre public maanaam même bu la waa ji signaler un an bu un an bi jeexee mënta ñëw ne la génnal si un an nga signé woon hmm. parce que loi bi ñaar rek la nangu mooy trois ans ak à durée indéterminée mën nañ tey nit signé contrat ak benn waay ne ko damaa bëgg nga reyal ma kële dat bu reyul waa ji kooku day dem police ne ko kii dama ko hmm. waaw dañoo signé contrat hmm. parce que l'ordre public moo interdit loolu disposition yu mel noonu nag moo tax ñu ne loi yi tamit dañ ko def d'ordre public maanaam lu gars yi di signé dafa war a méngoo ak li yoon wax mais boo signé lu méngoowut ak li yoon wax li yoon wax rek la ñuy appliqué mm-hmm. loolu tam c'est important nit ñi xam ko mm-hmm. te ana tey yan sanction mooy xaar euh, peut-être euh, alors bi nga xam ne dafa bañ a loi dafa wax mu ne balaa ngaa ñëw sa kër doo ko ñëw ci ah man kat damaa am yërmande wala ah man kat damaa bëgg xaalis nangam laay dee déedéet da ngay dem def surface corrigée ñun it boo deful surface corrigée c'est boo defee euh, te boo ñëwee kër gi balaa mu laa fay benn weer da nga koo war a jox papier bi wane ne def nga surface corrigée boo ko joxul woon daan na ne deux cent mille alamaan bu fekkee yow ci sa bopp mbir gi nga xam ne moom nga fixé moo ëpp mbir gi nga xam ne man laa moom laa wax loi bi nee na kon dinañ la daan benn amende boo xam ne mën na dem ba un million cinq cent mille wala tëj la lu toll ci diggante ñaar bu juróom benn weeri kaso c'est important ñu ñu xam loolu pour ko ñu moytu euh, yoon di dal seen kaw kon nag képp koo xam ne yaa ngi ci euh, location mm-hmm. fexeel nga laaj ku xam luwaay mu leeralal la bu ko defee doo dugg ci erreur mm-hmm. beneen bi ci nekk mooy bu fekkee ne dañoo gis ne yow li nga luwee moo gën a seer supposons soo calculé woon normalement yaa ngi waroon a laaj cent mille nga dem laaj cent cinquante mille ñu ne waaye ji dugg na ça fait ci biir yaa ngi koy laaj cent cinquante mille ñu def ka xayma bi gis ne yow cent mille nga waroon a laaj cinquante mille cinquante mille yi ci teg depuis cinq ans da koy remboursé waa ji te terewul bu booba daanu kasu bi wala daanu alamaan bi mu ngi sa ndodd kon nag nañ xam li yoon wax ñu koy moytu. par exemple tey ci côté préavis euh, bi ñu wax ne euh, boo waree génne locataire war nga ko defal. waaw d' abord si anam sax nga mën a génne ki nga xam ne moom mooy. Euh, locataire buy fay normal. Mm-hmm, buy fay normal la. moom bu toogee un mois la rek am nga droit dem jël huissier mu ñëw ne ko ah sa bi kat nee na yow fayoo mois bii. donc doon fay normal.

bu doon fay borom kër gi fayal huissier bi. ok mu jox la reçu bi wane ne fay nga mais da ngay fayaale itam li nga xam ne mooy frais yi parce que yaa yaa tax frais yi am léegi su ko defee bu date ba jotee comme ñu ne la 30 avril convoqué naa la. Mhm. bu 30 avril même boo fayee demal taxaw tribunal parce que boo taxawul bu huissier bi demee kese te waxoon ne fay nga ko juge bi day bind kayit ne na nga génn kon yow da ngay taxaw. boo ñëwee taxaw juge bi ne waaw Modou Diop nga ne ah mu ne ah Abdou Diop day nee na fayoo ko hmm. nga ne fay naa ko mu ne ana ana nga ah, kon jeex na demal mais bu bu jour ba jotee te yow war a nga juge bi danaan ana nga yaa ngi noonu nga ne waaw fay nga mu déedéet mu ne ah léegi génn su ko defee léegi day bind benn feuille boo xam ne mooy àtte bi mooy diw na génn tool boobu nag mën nañ def ay trente jours balaa muy génn mais bu génn rek huissier bi nga xam ne moom la ñu yónni moom day jël fooy bi rek na la ah suba nga génn hmm. bu ñu toogee ba ba nga toll foofu noonu ci suba nga génn mën nga koo wax ne ko da ngay def référé sur difficulté maanaam da ngay ñaan ñu delloo ginnaaw affaire bi su boobaa huissier boobu da koy fay wala nga dem beneen fay beneen huissier pour ko moom mu def procédure référé sur difficulté su boobaa day delluwaat ci juge bi mhm. mais waa ji kat nee na jafe-jafe bii léegi juge bi mooy xool est-ce que ñu may ko délai wala du ko may délai juge bi su ko neexee mu ne kon loolu la may naa ko délai wala comme loolu tamit dara li muy wax day wax rek waaye may ma ko délai su boobaa beneen décision mooy génnaat léegi foofu boobu tam bu génnaatee bu boobaa bu waa ji ñëwee dafay génne donc loo xam ne la il faut xam ko mhm. léegi nag pour nit ñi génne nit à part nga xam ne fayul il faut que d'abord ñaari kaa la benn bi nga ne da nga cee dëkk wala sa doom wala sa doomu soxna wala sa wayjur wala sa wayjuru soxna loolu damaa ni génne nit même bu nga xam ne moom nga dëkk sa frère jumeau maanaam sa seexandoo waxuma nag sa jarbaat wala keneen kon yow la wala sa jabar wala sa doomu jabar sa wayjuru jabar wala sa wayjur yow nga ne faa bëgg dëkk ñu ne waaw waa ji kañ dugg ñu ne deux mille vingt ñu ne ban premier janvier deux mille comme premier janvier deux am trois ans donc premier janvier deux rek nga mën a dañ koy jox benn papier bu ñuy wax congé maanaam dañ koy yëgal six mois avant ne ko le premier janvier damaa bëgg dëkk ci kër gi léegi nag fay boobu pour nga mën ko koo jox il faut que nga nekk ci comme ni ma wax nga ne ko dans trois ans par rapport ak date mu duggee su fekkee premier janvier deux mille vingt trois toog nga di fàtte ba mu des cinq mois c' est trop tard il faut nga xaaraat léegi premier janvier deux mille vingt six maanaam trois ans après pour nga doog a mën a joxewaat feuille bi pour demande mu génn valablement léegi boo koy jox feuille bi da nga naan ko Moussa Faye mii nekk sama doom gudd na vingt six janvier mille neuf cent quatre vingt deux wala wax. day am ay firnde daal. waaw yu leer nañu moom moo dëkk ci kër gi. Hmm. boo defee loolu bu fekkee def loolu ba pare waa ji génn nga dugal fa beneen koo xam ne bokkuloon dara da nga koy rembourser deux millions quatre cent mille bu fekkoon ne cent mille francs par mois la doon fekk. vingt quatre mois de loyer wala quatre millions huit mille bu doon deux cent mille lay fay ndax da nga koo génne te waroo koo génne. su fekkee yow da nga génne nga dugal ko sa doom sa doom bi wala yow nga dugg fa yow sa doom dëkk ci biir kër gi moins de deux ans mu génnaat da ngay rembourser deux millions quatre cent mille bu dee cent mille franc nga doon fay nga koy rembourser ki génn. soo ko génnee loo ko keneen da nga koy rembourser deux millions quatre cent donc benn bi mooy waa fay beneen bi mooy waa ji mën lay fay nga ne da ngaa bëgg a dëkk ci kër gi troisième cas boo ko xamee ne mën nga koo demandé pour mu génn mooy nga ne da ngay raser kër gi tabaxaat ko waaye damay transformé damay raquisté damay nangam déedéet il faut raser am raser démolition reconstruction te période bi ñu koy def démolition reconstruction gardien rek na war a dëkk ci kër gi te itam pour nga mën a def loolu il faut nga xaar ba nga nekk ci période de trois ans maanaam maanaam diggante diggante bu ñu fa duggee ak ak il faut il faut mu nekk trois ans moom trois wala beneen trois ans wala beneen trois ans wala beneen trois par trois ans rek la mën a nekkee maanaam su waa ji duggee deux mille vingt janvier deux mille vingt six mois avant janvier deux mille vingt trois nga ko war a jox congé pour defar pour mu génn janvier deux mille vingt trois soo ko ratee il faut nga xaar janvier deux mille vingt six ndax da nga ciy tegaat yeneen trois ans soo ko ratee deux mille vingt léegi nag te boo koy jox kayit ne ko damay def demel euh, travaux yi ngay wax démolition reconstruction da nga naan ko Abdou Gueye bi ñu mooy sama architecte numéro téléphone ma sama autorisation de construction la yéen wala bu fekkee loo xam ne du architecte nga ne ko doon na fay nii mooy sama entrepreneur autorisation de construction baa ngi yooyu et cetera et cetera yooyu documents yooyu yëpp ngay boole ak lii nga xam ne moom la huissier bi bi di indi foofu bi ci yooyu da ko ciy su ko ci bindul kenn mën laa génne. waaw mais da bañ avant date bi jot. parce que boo joxee six mois yi nag da ngay parce que yaa ngi dëkk kër jàmbur. waaw effectivement loolu dafa am solo. parce que yaa ngi dëkk kër jàmbur moom da ngay balaa six yi day jot da ngay devant le tribunal. wala soo ñëwee Konaré ñu defaral le système bi nga xam ne moom ngay contester. mais dans tous les cas buñ buñ buñ toog rek di seetaan te itam kayitu huissier képp kuñ ko yóbbul bul wax du la jël ndax boo ko jëlee huissier day dem yóbbu ko mairie te lu boobaa day valable te yow doo xam ne bind ci fay bi kuñ jox fay kayitu huissier rek jëlal parce que jël saabu veut pas dire que d' accord na li huissier bi wax mais ne gis nga fay bi mais boo gisul fay bi suñ ko yóbboo mairie mairie day wax gis nga fay bi hmm. comprendre donc képp ku ñuy imiter la nga jël kay donc ko en compte. que tey c'est possible. te te boo raasee ko. boo uh-huh. fa nekkoon mooy prioritaire pour soo ko jëlee jox ko tam da ngay rembourser kon les locataires sont bien protégés. est-ce que na mu yokkaat mu yokk li nga xam ne moom. waaw parce que bu fekkee tabaxu raser bu ñu ko raser. Hmm. ñun bu fekkoon ne par exemple kër gi. baraako yor ñu raser ko tabax ko léegi def ko environ xam nga mooy gën a seer comme loolu rek ça dépend si bu mu raser bu mu tabaxee ba pare li mu tabax ndax moo gën a am valeur li mu tabaxoon njëkk wala déet su ne mbir mi tabaxaat moo gën a am valeur comme yoon daf ne ko par force da war a def surface corrigée balaa ngaa loué kër gi su defee surface corrigée kon surface corrigée bi génnee prix bu gën a yëg à ce dafay def surface corrigée surface comme ça nag mooy li nga xam ne ñu bari xamoon parce que ni ñuy dégg nga dégg nit na la waaw mais yéen seen affaire bi ñu ko waroon a def par jour géejawaay nangam ak yi nangam li ñu def loolu gën a précis encore loolu parce que dama leen ba pare ndax damay jox benn exemple xam nga soo newoon géejawaay trois chambres salon deux cent mille mm-hmm. ñaari kër mën leen taqaloo nekk géejawaay mais kër gi léegi gën a yaatu bi oh. am nga ne kii deux cent mille kii deux cent mille te bokkul yaatuwaay xam nga da ngay pénaliser li nga yaatule wóolu ni kër mën nañoo taqaloo jàkkaarloo ak rafet bii bu rafet duñ jàkkaarloo géej gi du géej gi du wan géej gi mais jàkkaarloo géej gi maanaam ci benn kër jàkkaarloo géej gi duñ jàkkaarloo géej sooy calculer néeg yi du jàkkaarloo géej gi borom bii boobu moo gën a cher bi nga xam ne amuñu leneen li nga xam ne moo nekk ci calcul bi ba tey ñaari néeg bi gën a leer bi moo gën bi nga xam ne soo ubbee ngelaw di dugg donc loolu lépp le calcul surface corrigée jël en compte boole ci bépp investissement boo ci def ndax kër boo xam ne ci suuf maanaam dërë moo gën a yomb boo xam ne karo bi nga xam ne karo moo gën a yomb bi nga xam ne marbre la kër gu am suuf oo mënul bokk fii ak bu amul suuf oo oh. donc lépp xam ne borom kër gi def na ko comme investissement ci kër gi calcul bi da koy jël terrain dañuy bokk li mu jëndee terrain ko jëlee def yi bokk yaatuwaay bi ak fu terrain bi nekk ndax du terrain géejuwaay am na benn loi bu wax benn zone bu nekk ah, na benn décret bu wax zone bu nekk ñaata la fa terrain di jar sur le plan officiel pour calculer nga xam ne mooy géejuwaay bi léegi loolu dañ koy jël en compte hmm. façon tabaxin bi maanaam loi bi mu prévoir li muy wax ñoo gën a complet par jour parce que par jour lu commencé côté yoon est ce que on que bailleur bi mu trouver ay euh, résolution par exemple à l'amiable la ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy locataires yi au lieu mu ci prix yi mais mu waxtaan ak ñoom ba ñu trouver li nga xam ne waaw yoon dafa fixé ne prix bi hmm. su su fixé ne par bi mu nekk kenn mënu teral boo loolu war a xoroon mais mën ngaa wàññi bu la neexee yoon ne vingt mille dana man kat man dama koy wàññi quinze mille waaye yoon daf ne mënoo dépassé vingt mille c'est très important mënoo ko dépassé mais mën ngaa yéene ko mais day fekk nga def xayma bi surface corrigée ba mu ne vingt mille ba pare nga ne ko gis nga de fay baa ngi vingt mille la mais man noonu la demandé nga fay dix huit wala quinze wala dix wala lu la neex mais day fekk yow wax ba pare mm-hmm. Mm-hmm. tey par exemple ñi nga xam ne dañoo am ay euh, ay arriéré. Mhm. Euh, de arrière arrière de salaire. Mhm. Euh, lan la lan la wax ak ñoom tey nan lay def. waaw bi dafa wax ne yow mi nga xam ne yaay locataire waroo lor mhm. a respecté xam ne moom nga signé boo ko respecté woon ki nga xam ne mooy bailleur bi. pour que mu def li yoon wax maanaam mu génne la mais mënu génne nag kenn mënu génne kenn ku dul juge juge kese moo mën a génne nit donc moom bu amee gis ne yow nii respecté mooy li loi yi wax parce que feyoo ko par exemple dafay dem ci juge bi jooytu loolu juge bi moo lay génne bu juge bi génnee ba ñu fay yow la génne ba pare ci la huissier bi di ñëw indi fooy bi mu ne ah man kat ab ndaw laa bu ñu juge bi mu ne ne naa la génne waaye huissier mënul génne kenn madame mënul génne kenn juge kese mooy signé ne génnal pour que nga doog a mën ak loo mënti yore. ak loo mënti heure jot na nag foofu duma daw parce que ñooñu soxla dañoo bari te soo accordé lii lépp rek oh. du baax. dëgg la waaw lii <laughs> def ci man yi xamante ci rek <laughs> li may wax daal mooy bari na jafe-jafe yoo xam ne ñàkk xam information boo ko waral locataire bi du xam information bailleur bi du xam information ñàkk xam information mooy ñàkk xam loi ñàkk xam ne loi wax bokk na ci lii tax ñenn ñi di am résistance waaye ku ci dem ba xam ni loi bi wax wax dëgg yàlla dangay respecté loi ndax ni loi diis na diisaay boo xam ne xajul moo tax nañ def tout pour que kenn ku nekk xam li am ci loi pour que mën nañ koo moytu. waaw maa euh, ngi leen di gërëm di leen sant. bu baax a baax monsieur Maodo effectivement comme ni nga ko waxee rek bu gën a waxtaan bi gën a yaatu. waaw dafa nekk lu yaakaar naa moom jot nañ fi indi ay leeral yoo xam ne euh, dina am njëriñ lool ndax fi mu nekk nii question yi bëri woon nañ ay question yu bëri sax booy xool ay euh, ay nit ñi ñu ko yóbbante moo taxoon ngir ne mbir mi mbir mi noonu. Euh, di la jaajëfal kon bu baax a baax di jaajëfal itam mbokk internet yi nga xam ne saa su ne ñu ngi bàyyi xel ci suñu différentes plateformes yi seneinfo point net seneinfo international euh, réseaux sociaux yi di leen jaajëfal bu baax kon di leen jox dig daje yàggul dara rek ak beneen